أعوذ بالله بسم الله وصلى وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وخديمه لي موي كاسيت بي جاكليل تباسكي اك تود دوم اك ريندي نو تامبلي سي واخني تاني وو ووتي سي با اغي بيسو تباسكي با فك غا ام سي ام تودو ndax man nga def ben rek mu yobale yar yep dañ gëna sukkandiko moy su fekke ne man nga yar yep kon def ben ba rek mu wécc yar yep du doy lay bax rek moy nga rendi ben muy tabaski rendi ben mu di am tuddu bu ku ci yar yep nak melna ne kon man naa japp ci ñu wax ne manes na ko daldi mo len di ben ba mu am rek yene ci tuddu ma tabaskima patay ñu japp ne hadis ba dafa diglé su weer tabaski xasse teru te nanga tabaski bul watu bul leweku bayyi ba ag ci bisu tabaski ba bareen di ba noppi door a wattu lewi ko tabaski sunna la su fedliko fedliko ci li gën a wër ci yoonu waa malik di am na sax ñu waral moom nag dafa bari ay ngëne lool ak i jagle nee nañu sax fasalli li rabbika wan ci la ko yàlla wax ci addis it soxna Aïcha ne yonante bi dane woon ma amila aadamiyun min amalin yawma nahri ahabba ila allahi min ihraaqi dam innaha la tati yawma alqiyamati biquruniha wa ashhaariha wa adlaafiha ba ca fatibu biha nafsan soxna si ne yonante bi dane woon bisub tabaski boobu doomi aadama mënu cee defal yàlla lu ko gënal tuur deret daldi ne dañu rendi ca bis boobee te yàlla tax su bis pencee dañuy taxawal jëmm ja lépp lépp mat sëkk béjjën yaag lu bokk ca kawar lu bokk ci weye daal dara du ca manqué ñu fay ko ko tuyaaba ba xolam sedd ba ci nam daane le kon nag da ngeen ko def te ànd caag xol bu teey ànd caag yéene ju rafet bu ñu nee tabaski nag mooy rekk bisu tabaski boobu mbaa ñaari fan ña ca la aji gëm ji rendi moo xam xar la moo xam bëy la moo xam nag la moo xam gëléem la te yéene caay jaamu yàlla lolé mo tuddu tabaski buñu né sunna la itam nak dañuy wax né sunna la ci ko xamné jek na bopam ba at ma yépp yépp te ci dem ba ag ci bis bo xamné dana loro loru ba bu amun tabaski ma da koy jaay fak njëgg faje ko lorom jojé lor ji ñu wax nak moy lu aju ci waluk lekk mbaa sol mbaa fatu ci boppam mbaa ci njabootam daal dana ci àgg ci lor joo xam ne dana ci aajowoo yoroon tey jëwug tabaski moomee ba faje ko lor joojee mënta koo xam ne koo xam ne wóor na ko ne jekku na boppam ba at bu yàlla indiwu dogal ci aajowoo ci ni ñu waxe jëwug tabaski moomu kon sunna la lool suñu taamu ci moom lool mu farlu ci def ko mo xam nak goor la mo xam jigen la ba ci sax gone go xam amna alal na ko ko kilifaam defal bu dee sax kër go xam ne ñu bari dafa nek te ñu ci bari bari man itam bu ñen ñi def tax ñen ñi nun dañuy bayyi baña def ndax leñu rendi doyna dawal gi nangam ak dañoo jubloo jaamu yàlla bëgg tuyaaba kon nag ku man rek na def ta sàkku ca tuyaaba dawal gi moom du yàqu mënees na koo toppatoo jox ko ña ko aajowoo mbaa ñu defar ko di ko jariñoo gannaaw bu bisu tabaski bi jàllee ba tey ka nekkul di aj moom lañu wax ne tabaski sunna la ci moom waaye kay aj moom abiyu muy lamuy rendi fofé ca barab yu selia, ya man na doon mu mu coobarewu man naa itam nag muy loo xam ne yoona ko ko sant mu war koo def do tee nag lu bokkut ak addi muy def foofee ñu taamu wutum tabaski ñu rendi ko foofee ci kër ga ndax baña bàyyi waa këram rek ñu toog loxoy kese bu ñu nee xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëleem la ñuy tëbaskee bu dee xar moom su at mu matee rek donte benn fan moo ca topp it dal nay baax mel ne bi ñee suba la tabaski lu ca juddu bu ca déwén saa mu dal di mat tabaski ndax am na at ak benn fan bu dee béy nag moom faawun am at ba dugg ca atum ñaareel ma duggugul leer mel at ma weer topp ca mbaa lu ëpp weer am na ñu wax nag ne bu amee juróom yett weer baax na am ñu wax naa bu amee fukki weer baax na waaye jàppal rek li ñu jëkk wax moom mooy li wér ci yoonu al imam malik yàlla na ko yàlla dolli gërëm bu dee nag lay tëbaskee na am ñetti at ba dugg ci atum ñeenteel ma bu dee gëleem na am juroomi at ba dugg ci moom juróom bennel ma muy nag muy gëleem at ñu ne na ca dugg lum ca dugg rek mu doy dal di baax li gën ci lañuy ñuy tëbaskee mooy xar bu xar jàllee bëy topp ca nag topp ca gëleem nag mujj ndax bu dee moom gën a baaxu yàpp lañ seet duñ ca seet gëna bari yàpp wa yeen ci xeet yi xeet woo ca man di wut tabaski jàppal ne ba ca doon góor te kenn tapp ko moo ca gën ba ñu tàpp topp ca ba yàlla saxalal sawukaayu góor ak sawukaayu jigéen topp ca bu jigéen door caa topp xeet wu ne moom tabaskee ba cay góor moo gën tabaskee ba cay jigéen waaye nag ci wàllu bee doon kuuy bee doon tàppaanga balaa kuuy laa gën ñu yemoo ñoom ñaar ab suuraay wala moom kuuy la mu gën a suur de bu fekkee tàppaanga ba daa gën a suur day di gën kuuy la dañoo taamu nag nga boole lekk ci joxe ci addiya saraxe ci duñu wax nag ne da koy def ñetti xaaj mbaa nangam ak nangam moom daal bu amee loo ca lekk am loo ci joxe addiya am loo ci joxe sarax rek dal nay baax duñ seet leen lu ci nekk noo koy tollul saraxe mooy ki ngay jox yàlla rek a tax jëmam ji taxut loru ga rek nga cay seet addiya nag moom mooy jox koo xam ne daal ñàkkut looy seet ci jëmam gannaaw bëgg tuyaaba yàlla am na leen loo seet sa digganteeg moom ba tax nga jox ko loolee ci bu dee ab sëriñ wala muy boroom xam-xam wala muy ab jegeñaali bu la féete ci wàllu mageel wàllu kilifteef ñu ne tabaski ñetti fan la muy bisu fukkeel bisu fukkeel ak benn bisu fukkeel ak ñaareel jàppal ne rend ca bis bu njëkk ba moo gën rend ca ñaari fan yee ca topp boo bëggee xam nag waxtu rendi wa da ngay wax ne bu dee bis bu jëkk ba moom ilimaan lañ njëkk a seet waxtu rendeem mooy rek bu jullee ba xutba bu rendi woon te fekkul mu julli ba xutba du doy su fekkee ilimaan génne waa am xaram ba ca jullikaay ba balaa kenn rendi na néeg ba ilimaan rendi bu ko jiitoo rek njëkk ko rendi du baax su fekkee ilimaan génnewaale na am tabaskeem ba ca jullikaay ba waaye nag gannaaw ba ñu jullee ba xutba dafa dalul di rendi xanaa nekk ci yeneen yitte yoo xam ne daa topp bakkanam rek waye manan na rendega. ci rendi ga kon ku ko xaar ab dir bo xamne rendi rendi xajna na fi nga dal di rendi rek dal nay bax bu fekkone nak la ko tere rendi moy ngant mel am tawaskem dafa réer baa ñu koy indi dafa muy bayiko sori kon dañu sopp ñu diko neggandiku diko neggandiku tisbar jage te ngant la dañu ñu doora ren di bañ ko négati ak lu man di am nak mom mo xam la ko te ren di du ngant ta top bakkanam wala ngant la faaw nga négandiku dir so xamne ak rendeem xaj na fi doora rendi waye bu fekke ne xaru sax dir soso dang ko jitu ci ren rendi nga rek la nga rendi du doy tabaski bu fekkee ilimaan génnewaaliwul am tabaskeem ba ca jullikaay ba kon kenn ku ne boo delloo ba sa kër da ngay tolloole ba jàpp ne fi mu toll daal ku dem ci iliman na nga fekk mu rendi ba noppi nga daal di rendi noonee nga tolloolee nag daal di rendi boo ko jëkkee rendi itam du tee la nga def baax na la la ca war rek mooy gam le tolloole ba jàpp ne ku ko gis war naa ba rendi bu fekke nak barab ba nga nek amul iliman, dañu xet iliman ba la gëna jëgé sa digënté ak mom numu tollu su fekke mi ngi tollu ci digënté ñent kilomètre ak jenn wal rek waye gënu ko sori dañ ko yemaleeg nga bok nak mom nek ci benn barab nga xamné su génné am tabaskeem ba ci julikaay ba faaw nga xaar ba mu wër la né rendina na nga doora rendi su fekkee ne wul am tabaskeem boo tolloolee ba jàpp ne rendi na rek nga rendi noonu lay mel su fekkee nag ilimaan ba la gën a jege sa digganteeg moom ëpp na ñeenti kilomètre ak genn wàll kon yow da ngay toog fa nga toog rek tolloole gam-gamale ba jàpp ne fi mu toll daal ilimaan joojee ku fa dem da nga fekk mu julli ba rendi nga daal di jóg rendi yooyu jamono boo ko jëkkee rendi itam du wàññi dara kon nga tak bu baax ne fo jëkkee rendé ilimaan te woro ko woon a rendi yap rek ngay am do am tabaski waaye nak foo ko njëkkee rendi ci kaw top ni la ko digalé jëgg nga ko njëkk rendi du wañi dara am nga tabaski rendi ci bis bu jëkk bi muy bisu fukkeel bi mom donte sax ag nga takkusaan mo gën di xaar bésub ñaareel ba mooy bis ca julli ga bisu ñaareel boobu itam rendi ca yoor yooram moo gën xaar ba ca yoor yooru bisu ñetteel waaye nag bis boobee la muy doon doon ñetteel rendi ci ab yoor yooram moo gën rend ci ngoonu bisu ñaarel bi ci waxinu gëna ba xam bisu ñaarel bi bu fekkee ne rendi wo daal ba tisbar jot la gën mooy nga bàyyi ba ca bisu ñetteel ba ca yoor yoor nga xam ne yoor yooru bisu ñetteel moo gën gannaaw tisbar yi bisub ñaareel nga seetlu ne bisub ñaareel boobu baa bisub ñetteel bi bo rendi won tabaski ma ci guddiga manam ñepp rek fajar di fenk du bax dañu taamu nga bayyi ba yor yor waye jappal ne bo yakamti won mom ba fekkul sax fajar fenk mom du bax yap rek lay doon bu dé bisu jëk ba nak mom bu faté ne faawu iliman day khutba gannaaw bam julé rendi kenen Dora, saña rendi faaw itam kay rendi na nekk ab jullit jullit moom tabaskeem bu ko rendiloo woon ab yéefar donte daa bokk ci yéefar mbaa nga xam ne sañes naa lekk la mu rend itam du ko taxaam tabaski daañu lekk loole yéefar ba mbaa nasaraan ba rend ci ndigalam rekk daañu ko lekk ci kaw dagan naa lekk waaye du mat tabaski balaa doon tabaski ab jullit rendi ko dañuy sart itam mu bañ doon lu ñu bokk ci moomeel wala ci kenn ku ne génn njëkk tabaski nanguwut ngeen bokk moom jëmm ji bëgg koo def tabaski mbaa kenn ku ne génne njëg ngeen boole dem jënd tabaski bokk lañ nangu daal mooy kamoom ki ma yéene waale ca ñeneen ñooña dal di am tuyaabay ki donte sax fekkoon na ñu mën a tabaskil seen bopp itam bu leen yéene waale rek te rek mu sañ leen a yéene waale doy na du aajowoo ñoom ñuy tabaski loolu nag ñetti sart la ka nga bëgg a ca tuyaabay tabaski ma na doon sa mbokk doonte sax taxul mu jege la noona sa soxna nag dañ koy jàppe ne sa mbokk nga xam ne mën nga koo yéene waale ca tuyaabay tabaski ma ñaareel ba mooy kookee nga di ko dundal boole ja doonte sax dundal ga yaa ko coobare waaye waru la mel ne sa baay bu ndaw wala sa mbokk mbaa doomi mbokk baax na ñetteel ba nag mooy ngeen bokk rëddu kër doon ci sax da ngaa féete fee mu féete fee waaye yéen a bokk rëddu kër bi rek daal nay baax bu ci ñetti sart yu dajee rek ku mel noonu danga ko mën a yéene waale ca tuyaabay tabaski ma buñ bari woon ëpp juróom-ñaar manees na ko nga tekki nag jéem a ràññee bu baax xeeti sikki yi nga xam ne bu am ca tabaski ma du baaxati du doyati tabaski mat nañu fukk ak juróom-ñeent na mucc ci pat su xasee pat donte bët ba dana ñum itam waaye pat rek du gis du doye di tabaski mu baña ñak ben cër niki tànku kanam ba tanku gannaaw lu may nak wa yalla ya mo ci nekkul te dañ ko tap ngir bëgg yàppoo gëna baax loolu ci ca wàññi dara mu ci itam ci li wax lu manam baña mëna mem su fekke mënta mem dafa lu du baax baña xesaw gémmiñ lool bu gemiñ nga xesawee day feeñ ca yàpp wa moo tax nopp ya bañ a tuuti lool lool bu nopp ya tuutee lool lool ca na ko yàlla binde du doy tabaski mu bañ a yooy bopp lu ñu wax la nee nañu mooy ay yaxam bañ a am li ñuy wax yuq ndax rek làpp gum làpp yooy bu mu yooy ba tey bu mu doon boo xam ne dafa dagg ba wecc baa na ko yàlla binde amutub geen bu amee nag lu ca dagg waaye lépp daggut daañu ko teqale ba tey mu bañ a amee béjjën bu damm te wérut boole ca su fekkee béjjënam dammoon na waaye wér na bu ko tee baax waaye nag su béjjën ba dammee bu nëccutit waaye wérut du baax ba tey bu dee bu jigéen boo xam ne patt ya Dawo kong, war naa toll ci am soow waaye mënta am soow ndax batti doyatul tabaski su benn batt ba amee soow nag ba ca des moom amul soow du ca wàññi dara dana doy nga delluwaat nag ca geenu gannaaw ba daal di wax ne ndegam yàlla wutal na ko gannaaw lu ca dagg rek nañ seet da ca dagg su xasee mat ceer ba nga xam ne boo ko defoon ñetti xaaj la ca dagg mat benn xaaj ba doyatul tabaski lay baax daal mooy la dagg ca kennu gannaaw boobee matul ceer ba niki boo ko defoon ñeenti xaaj benn xaaj baa dagg muy kaar ba moom na doy nga teg ca mu bañ a tawat tawat ju fis ju ràññiku bañ a ràmm gu fes baña a fër fër gu fes baña dof ndof gu fes baña lagi lagi gu fes li tax ñu ne tawat ju fes ram gu fes fër gu fes ndof gu fes lagi gu fes mooy bu fekkoon ne amee na tawat ba ram mba feur mba ndof mba laggi waye amul solo lu wayef wayef la dañu ko jéggale mu bañ ci am sax moo gën waaye kon mu doy tabaski nga ca ci ay lu ëpp benn lu may waral ko wala mage gu mage waral ko su fekkee ne waral mu ñàkk lu wala ak magge moko waral ci wañu dara batay bu fekke ne benn bañ rek mo den ci ay bañum fokk sax waralu ko mage waralu ko waye benn bañ rek la du ko te day tabaski waye nak ay bañum la ca dem bu ëppee benn te fokk ak mage waralu ko niki dañ ko door rek mu daldi ñak lu mat bari bañ ba ñatt kon du doyati tabaski nga teg ca nopp ba baña xar baña dagg su fekkee ne nopp ba xar na mbaa dagg na waaye ku seet la ca xar mbaa la ca dagg ceer ba lay tollool maanaam boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj ba mbaa sax du ko mat loolu jëggale nañ ko waaye nag bu fekkee la xar ca nopp ba ëpp na ceer ba mbaa la ca dagg ëpp na ceer ba du baaxati nga seetlu ni ñu wutalee geenu gannaaw ba ak nopp bi geenu gannaaw dañ koo fonk ba nga xamee ne ceer ba rekk bu daggee loola du matati tabaski te nag nob mom moom la koy tee mat tabaski mooy la ca dagg mbaa la ca xar ëpp ceer ba te bu tolloo ci ceer ba dong dong jéggale nañu ko jàppal ne sopp nañu ci la ngay tabaskee mu mucc ci mboolem xeeti sikk yi nga xam ne dañ ne woon du ko tee doy lépp luy ne rek sikk la waaye du tee mu doy tabaski mu bañ ca am moo ca gën mel ne tawat ji woyof mbaa làggi gu woyof ak lu ko nuru ak sax béjjën bu damm te wér boole ca ndax danga ne woon béjjën bu damm te wérut moom du doy nga tegoon ca ne su béjjën ba dammee nag waaye wér na moom doy na jàppal nag ne nga am boo xam ne béjjën ba amul benn sikk damul deful dara lañ gëna taamu ba da nga ne nopp ba la ca xar su tollok ceer ba ba la ca dag tollok ba jéggalé nañu ko du ko pokay lañ jéggalé wut jappal nak ne nga am tabaski mo xamné ne nopp ba dara sikku ca dagul ci genn wet xarul ci genn wet mo gën fexel dal ba nopp ba bu am ben ba dara lu cey dag di lang mo xam ci kanam la mo xam ci kanaw la no it baña am daray xetu xar xar sopp nañu sam tabaski nga rafetal ko bu baax ba nopi tam top tok bu mu duuf lol lu mu rafet gëna duuf rek ñu gën ko sopp ndax lu ñuy jaamo yalla la fa ñi rendé bu day penc ma nit ñi dox yi dem ak dikk wala muy fuñu peron nga xam ne bu ñëpp génnee seen tabaski ren dara jooju sobe te day gàllankoor nit ñi kon ilimaan rek la ñuy taamu mu génne am tabaskeem taamu keneen andim tabaskeem ba ca jullikaay ba waaye bu fekkee fa ñuy jullee ci àll ba la nga xam ne bu ñëpp yóbboo seen tabaski rendee fofu itam du wañi dara sobe sa du takal kenn ndax dañu julli rek rendi dal dem kon taamu nañ muy iliman muy keneen yóbbu seen tabaski ba foofee ca jullikaay ba iliman nag ak lu man di am moom sib nañu muy bañ a génne am tabaskeem ba ca jullikaay ba ku ta iliman nag buy soppoon ci moom mu génne am tabaskeem te wu ko it la def desu tuddi ak sib iliman nag moom bu ko deful rek ñu tuddee ko ak sip ba tey taamu nañu borom tabaski mi mu rendil ko boppam donte jigéen la itam su ma ne rendi mu rendil boppam moo gën muy rendiloo keneen bokk na ci ñu sip nga mën a rendi sam tabaski ba noppi di ko rendiloo keneen waaye nag boo ko rendiloo keneen koo xam ne matale na sart mooy jullit la teyit dana di julli loola kon dal nay doy moom mi nga wax ne ko rendil ma bu ko yéenee loon boppam bañ la koo lit waaye yaa ko jox ndigalul rendil ma rek moom du tee dal nay baax so amee it sa mbokk mbaa sa xarit boo xam ne da nga koo baaxoo jox ndigalul mu rendil la tey nag moom moo jekki-jekki rek dem rendil la waaye joxoo ko ci ndigal du ko tee baax ab jaambur nag bu tëbe fële rek jekki-jekki jóg rendil keneen am tabaskiyam te amu ci ndigal moom dogu nañ ci ne du baax koo xam ne itam dafa juum mooy dafa jaawale rendi tabaski moo xam ne bokkut ak moomam tabaski moomee du ko doy du doy boroom ndegam juum na rek moom ba rendi tabaski mu moomut du ko doy du doy borom deug deug waye nak xam nga ne du tey ñu lek ko dadul doy rek tabaski ko xamne nak du sa xarit du sa mbokk waye da nga ko rendilo xamne kon jambur la ci yow waye da nga ko rendilo tay nak mu jekki jekki rendi sam tabaski te joxo ci ndigal amna ñu ne dana baax doyna tabaski amna ñu ne dedet duñ ko yamalek sa xarit ba sa mbokk ma nga baaxoo na rendiloo bu tëb top dem rendil la te joxoo ko ca ndigal sib nañu bu amee tabaski mu jigéen mu amum soow muy naan ca soow ma wala bu dee xar am kawar muy wat kawar ga di ko jariñoo mbaa mu koy jaay loolu lépp sib nañ ko ba tey sib nañ am tabaskeem mu di ca jox kudul ab julit amna ñu ne mu ñew fekk ñu lek mom momé nga xam du ab julit nga ne ko ñewal lek mu dal lek ak nga tibb ci yone ko ci kërëm ñoy yamoo rek lu ci nekk lu ñu sib la am ñu ne nag lañ sib mooy nga yónnee ko ci waaye bu ñëwee rek lekk moom du wàññi dara waaye jàpp waaye mën ngaa gàttal ne sib nañu yàpp tabaski yi nga ci jox kudul ab julit ndax ak jaamu yàlla la suñu su ko jox ku dul julit sib nañu ba tey ngay tabaskil ku génn àdduna bu fekkee nag moom daa wutoon am tabaski ràññeel ko ni lii daa ko yéene tabaskee ñu sopp bu génne àdduna itam ñu wéye la yéeneem dal ko koy rendil tabaski sib nañu lool lool nag di puukarewu ci bëgg ëppale am tabaski ak gën koo seerale di puukare woo am tabaski mbaa gën koo seerale yi mel dal daal sip nañ ko lool loo nar a jënde benn tabaski bu seer a seer jëndal rek bu digg doomu ca des nga dimbalee ko doomi aadama yee ya ca loru jàppal nag ne tabaski moom balaa doon tabaski ngarendi ba agal te amul ben sik bo teron bay rendi tank ba dam ba paaka ka berecc luqi bët ba yak bët ba it amagoo tabaski dafa wutek atep adiyu adiyu mom bu lay rendi fofé ci makka ak barab yu sell yooyee soo wut rek ràññeel ko niki budé dee wutal ak caq wutal ko caq bu dee ñi ñuy mandarga mu xotti yaram wa nga xotti ko daal nga rañal ni li moy sam addu rek sa jaar wacc na ganna ba bu ci dara xewon lo xamne teena ko doyit du teyew yow sa jaan wàcc tabaski nag moom man nga ko wut ko jën da koy tabaskee waaye li rendi ba nopi bu ca dara sikke lu koy tee doy rek batay amago amagoo tabaski sa jaan waccagut jappal nak ne tabaski mi momo ko yalla ko mom ci wet moy sañoo ca jaay dara dara dara sañoo ca weccee ak kenen lu bok ca yapo ba dara mo xam derba la mo xam yax la ba yap ba ka nga xam ne lay fessal dang koy fay lenen lu bokut ak yap man nga nak bu ca loro nga sarax ko waaye toko ko jox lañ daan jox kuy